le maire bu Sangalkam du leen mas bàyyi ginnaaw dina wéyal xeex bi ngir seenuk ba dig libération naka noonu it bu Ousmane Sonko ci technique bi ab Thiam. Assane jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi ndakaaru Médina rue 15 angle corniche immeuble El Hadj Elie Mandour ñu wutali tëngee ci jokkul ak jéye jëfa démb ak wàllu tukki mi ci anam yi dëppool ak yoon ak ndaw lu ci ñàkk bakkanam ci xeexoo yi fa li leeral li Abdou Diouf Diagne lépp a ngi doore ci yéen ji ñu amoon ngir daal di dem nag bitim réew lu ni mel nag daal di mujj jur jéeya ba bakkan daal ci wadd bu ñu sukkandikoo nag ci Pierre Mboup doon ki nga xam ne moom lañu ñu dénk wàllu dox jàmm ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yëngu ci wàllu napp gi mu ñuy xamal nag ne dafa am koo xam ne nag dafa bëggoon a yóbbu ay ndaw bitim réew bi mu demee nag ba gaal gi war a dem ci la daal di xool ne gaal gi nag ña ca nekk seen lim ëpp na li mu àttan ci noonu nag la xamle ne am na ñenn si ñoom ñoo xam ne faaw ñu yóbbu leen ci beneen gaal la ñi nga xam nag moom la ñu tànn ngir ñu dem ci gaal gu yees gi ñoom ñooñu nag ñu daal di lànk lu ni mel la daal di woo nag seen ay njaboota loolu nag daal di jur ab xeex ci seen biir ba am benn ndaw boo xam ne daf see ñàkk bakkanam moom nag mu ngi dëkk ci quartier bi nga xam ne moom la ñu duppee Jokkul Njaayeen nekk ci commune bu Rufisque Ouest loolu nag la seen bébét mi nga xam ne moom la ñu amoon daal di këpp biir géej ki nga xam ne nag moom moo si ñàkk bakkanam ginnaaw bi nga xam ne nag policiers yi daal nañu koy gis ci la ñu woo sapeur pompier mu daal di jël nag ab néewam ki nga xam ne nag moom moo jiite KDPES yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Sénégal gépp di sàkku nag ci woy ñi nga xam ne nag ñoom ñoo séeq mbir mi ñu daal di fexe nag ba jàmm daal dikkaat ci seen biir ndax ñoom ñëpp nag ay mbokk lañu RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. jërëjëf Abdou aw tiis weneen di làquk sëñ Cheikh Fall Ndiaye euh, nekkoon xalifa sëriñ Modou Moustapha Fall ibn maam Cheikh Ibrahima Fall radiallahu taala anhu moom moo génn àddina ci lu ëpp juróom-ñetteelu fukki atam ñu koy jaale ku tedd ki ca Touba sëriñ Mountakha Bachir njabootuk maam Cheikh Ibrahima gépp ak mboolem julliti senegal ñu des diwaan gu tedd ga Touba ak euh, l'école yu bari yëfa ci wàllum njàngalem alxuraan ak ay école franco arabe euh, xalifa bu tedd bi la mu bëgg mooy ñu daal di organiser waat mbir fexe ba it wàllu yorinu jumaa it naka noonu ca lépp dëppook njàngalem ku tedd ki Seexul Xaadim Pape Mbaye Diaw Touba doon dëkk boo xamante ni njàng ak njàngale doon fi lu am solo loolu ba moo waral ay daara yu bëri ñu daal di ko fi sanc ak ay école franco arabe ci loolu nag xalif général des mourides di sàkku ñu xoolaat njàngale mi ci dëkk bu sell bi sëriñ Muntaxa Mbàkke eh, dëkk bu sell bi sëriñ bi sàkkul ko boppam digg ba boromam ba amee ko ni mu ko bëggee mu dox ba agsi fii képp koo xam ne euh, euh, da yàlla daa xeer ci euh, ñëw fi na nga xam ne dëkk bi dëkkum digal la te it bëgg nañ ñëpp maasa si benn doxin bi muy doxinu sëriñ bi rawat na nga da mën a jàngale diine ba di ko jàngale loolu lu mën a xew la ca jiitu nga jéem a xam kan muy sëriñ bi jéem a xam lan mooy doxin bi fii liñ fi jàngale daal mooy njàngalem sëriñ bi itteel kii nga xamante nii moo di xalif général de mourides. ñëpp nu maa sa fas yéene sax. dàkk ci liggéeyal sëriñ bi. moo xam ci jàkk yi. moo xam ci jàkk yi. na ko na ko ñëpp xamee noonu. ndogal yi nga xamante nii jël na ko jëm ci njàng mi. ak ci yorinu jumaa yi. li bëgg rek mooy ñu daal di koy jëfe ba tax nee na lépp loo xamante nii war na ci dinañ ko def. ba bu jaree sax daal di joxe bakkan. danañu jaare suñu bakkan. waaw kon nag na ngóor gi fi nekk. jiwoon nañ ci ñoom. kon nag lu ci bëgg yi itam. daanoo ànd ngóor gi faj loolu na mu ko nañ ko war a faj. ci Touba nag école yi ak jumaa yi bëri fi lool. loolu ba moo waral Serigne Mountakha di sàkku. lan fay jàngale ak ni nga xamante nii noonu la ñu yore jumaa yi. ñu def ko ak mu dëppook li nga xamante ni noonu la ko Serigne Touba daan defee. RFM Touba Pape Mbaye Diaw. jërëjëf Pape Mbaye RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróomi pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te këru gaz gi di Total Energy Marketing Sénégal moom la mu def mooy ñoddiwaat yenn ci butéelu gazam ci mel ni gaz butane orange bu 6 kilo beeg bu 9 kilo bi ñu daal di mandargaal lo 28 dàqunu xalaat ci konte ko ak yeneen yu bees li ko waral di ak mooy toog defaruwaat ngir moytu jéyee jeneen Amadou Sabax Ba dogal bi ngir aar ay consommateurs mi nga xam ne ne Total Energy jël na ko mi ngi soxol butéelu gaz bu 6 kilo nga xam ne ne couleur bi dafa orange ak bu 9 kilo bi yooyee butéey nag ñu ngi ci bind lo 28 société bi nag mi ngi ngi baalu àq ñi nga xam ne ne ñooy consommateur di jëfandikoo yi les gaz muy wax ne ne képp koo xam ne ne jot ngaa jënd yooyu les gaz mu wax mënees nga kaa yóbbu ci distributeur total yi nga xam ne ne moo la a ak juróom-ñeent ci weerum septembre bi ñu génn benn gaz moo explosé fële ca jëppal derkle ba juróom-ñaari doomi doon jëfandikoo téléphone ci wetu gaz bi nga xam ne ne moom la doon toggee reer ñu njortu ne moom moo waral boobu la explosion ba tax na enquêteurs yi fi mu toll nii téléphone portable moom rek lañu am ci piste naam ba tey confirmé wuñu lu ni mel mu maire ba futu maire bu ndakaaru ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weerum septembre bii ñu génn demoon jaale ji famille Diouf bi nga xam ne dañoo nekk ci naqar foofee la Barthélemy Diaz waxee ne ne maire bu Dakar dina jëlu plainte teg ko ci ndodd Total Énergie gannaaw explosion boobee la mu ci jublu nag bokk na ca ñu leeral mbir mi waaye tamit yoon def lëgëyam jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy victime jërëjëf Amadou Sabax ba tey ci xibaaru suba geeg RFM ñu bari ci ñun tegoon loxo eh, ginnaaw ngan gi fi Juan Branco kenn ci avocat Ousmane Sonko doon amal Sénégal ci kilifa yi jàpp ne ngan gu dëppwul ak yoon la moom avocat bi ca France nag eh, ne dina wéyal xeex bi ba ñooñee ñu ci jàppoon ngir ak nganam file ku ci mel ni maire Sangalkam Papa Sow ñu baleen eh, dina xeexit ngir libération Ousmane Sonko Juan Branco Babacar Fall. Je veux que tous ceux qui sont aujourd'hui en détention, que ce soit pour des raisons strictement politiques. dama bëgg ñëpp ñi nga xamante ne dañ leen jàpp te teguñ ko si dara lu dul wàllu politique ñu bàyyi leen sama xel nag dem si lu tolloog 1500 euh, détenus politiques yi ñu téye ak it ñi nga xamante ne bokkoon naa ñoom prison fee ca Rëbës wala boog ñi nga xamante ne jàppoon na leen ndax rek dañ ma jàppale bañ bàyyi ma ñooñu ñëpp ma leen di xamal ni rek fàttewuñu leen ñu ngi xeex ngir ñu bàyyi leen rawatina ñi nga xamante ne dañ leen jàppoon rek ndax li ma ñëwoon Dakar te dara tax lu leen woon jóg lu dul jàppale benn avocat avocat ngir mu def liggéeyam ginnaaw ba mu ñëwee foofu def fa conférence de presse wax ci doxalinu procureur bi nga xamante ne yoon. suite à ma conférence de presse dans laquelle j'attaquais la République de Dakar a été. Euh, gannaaw loolu ñu teg mandat d'arrêt sama kaw après ci laa génnee lii di Sénégal ba àggee Mauritanie ñu jàpp ma fa ay nit ñi nëbb seen kanam jaay ma fa doole indiwaat ma ba Ndakaaru loolu nga xamante ne teguwul ci yoon teguwul ci dëgg. gannaaw loolu ñu bàyyi ma waaye ñoom foofu ñu xam ni mën nañ leen a topp ca France topp leen ca Espagne ndax rek liñ ma jàppoon li ma leen xamal rek mooy nañ bàyyi li ñuy fooye mu di jàpp ay nit te teguñ ko ci dara lu ci wàllu politique. sénégalais pour purger des conflits politiques. présidentielle 2024 Alioune Mamadou Dia mooy candidat bu PUR kilifa gi Serigne Moustapha si moom la tànn ngir kon mu demal leen ci jongantey palak njiitu réew. 2024 moom euh, Aliou Mamadou Dia nag fonctionnaire international la liggéey ay at fukk ak juróom-ñett ci système bu Nations Unies nekkoon ba fii ndawal PNUD ca Cameroun ngir gën a xamee ak moom ñu ànd ak ndongo waa PUR daal dinañu wane nag kan la ñu tànn Aliou Mamadou Dia mooy ki nga xamante ni moom la Serigne Moussa Sy Dini daal dee tànn ngir mu doon seen candidat ci élection présidentielle yu 2024 yi moom nag ci biir réew mi daanaka kenn xamu ko ndax fonctionnaire international bu am taxawaay ak yàggu loolu nag ci biir système des Nations Unies Aliou Mamadou Dia fi mu toll nii nag mooy représentant résident bu programme de Nations Unies pour le développement ca Cameroun mu doon poste xamante ni niki avril gi wees lañ ko fa daal dee tabb waaye lu ko jiitu moom Aliou Mamadou Dia woon ca Togo nekkal fa nag waa PNUD ci diggante 2019 jàpp 2023 ca Togo googu sax moom expert onusien bi fa la nekkoon coordonnateur résident bu système des Nations Unies diiruk ñaari at moom sax daal dinay liggéey ak lu ëpp fanweeri réew ci Afrique ngir jàppale leen ci anam gënuy doxalee lii di seen programme pays wala sax lii di seen cadre de coopération pour le développement durable mu def tamit ay mission ànd ko ak waa Nations Unies ci ay réew yoo xa ni dañoo ne ci guerre mbaa sax ñu dugg Congo wala ci zone Sahel bi ca est bu Nigéria wala ca nord wala sax ca réewum Tchad lii di gouvernance de crise mbaalu aju ci wàllu droit de l'homme wala état de droit ak lii di consolidation de la paix mbaa sax lu jëm ci wàllu réduction des risques de catastrophe naturelle moom Aliou Mamadou Dia am ci nag expérience bu wér péng boo xamante ni kenn du ko naataable ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nag la daal day def lu ëpp juróomi at ci wàllu de recherche ak boole ko tamit di jàngale département géographie lu nu mel sax moo ko yóbbu ca université Marne la Vallée ca France moom candidat bu pur bi nag faaw nag mu jaay sénégalais yi expérience bi mu daal dee am ci wàllu ko développement durable ngir fexe ba yile électeur daal di koy def seenuk tànneef ca ngoonuk ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum 2024. jërëjëf ndongo ka ñu fàttali ne euh, jéego bi njëkk nag laata loolu lépp mooy fexe am parrainage gi ngir mën a bokk ne mbër ci yooyu joŋante. ci wàllu woowu ndajaleem parrain yi tàmbali na 29 septembre ak léegi démb sax am na ndaje bu doon dox ci ministère intérieur diggante candidat à la candidature yi seeni ndaw ak kilifa yu ministère intérieur leeral li Boubacar Dieng. coppite yi mu ngi aaji wook li ñu tuddee élément discriminant jóge si taayu nit ki ñu remplacer ko ak li nga xam ni moo di date bi carte d'identité bi di jeex wala itam numéro yi ñuy def si fiche parrainage candidat bu nekk wante li gënoon indi coow moo di nag mbirum doublon rawatina doublon externe ma Massène Papa Gueye jàpp ni nag euh, lii bu buñ ko defee dafay tax yenn candidat yi duñu mën a bokk moom mooy coordinateur national bu wàllum parrainage ci coalition bi ñu tuddee coalition pour un Sénégal nouveau di ko jiitee di Mame booy Diao problème bi mu posé mooy suñ demee conseil constitutionnel ñu nekk ñu def tirage yow mi nekk premier amoo possibilité am doublon externe parce que yaa njëkk a déposé sa chance la mais ki topp si yow ba ki nekk quatre-vingt-dix-neuvième bi moom day hérité doublon externe yow yi nga am yëpp donc à la longue moom pour mu am zéro virgule pour cent mbala zéro virgule huit pour cent day posé problème. lu wees du ni mel lii di circonscription communale itam indi na jafe-jafe Mouhamadou Mounirou Sy moo fi teewal candidat bii di Mouhamad Boun Abdallah Dionne nekkoon fi Elimani jëwriñ na. wàllu commune mënoon nañ ko ci génne parce que boo dëkkee Grand Yoff commune la nga bëgg a jël ku nekk parcelle dajeeg moom Grand Yoff da ngay mujj jël beneen fiche tuddee ko parcelle parce que yaa ngi def circonscription communale Grand Yoff et pourtant au final on compte que la région da doon yombal parce que après da ngay dem di seeg yi di dugal di génn alors que mënoon nañ Dakar mandataire yi teewoon si bile ndaje yëpp ñoo bokk benn kàddu gi maanaam fexe ñu indi ay coppite si li nga xam ni moo di doublon externe yi ba fi ñuy wax ak yénn lu ëpp téeméer ak juróom fukki candidat daal nañu retirer seen fiche de collecte de parrainage ci direction générale des élections jërëjëf Boubacar ci ay xibaar ak itam njàng meeg ubbi l'école bi ginnaaw bi eh, seeni sëriñ delloo eh, démb ca daara ya wala eh, bërki démb jàppale ni gune yi ñoom fi leeg ñaari fan la ñuy dellu 5 octobre incha allah la ñuy ubbi yooyee ndongo fële ca maatam nag li cay jafe-jafe bi mooy manqué manqué ay jàngalekat ndax daanaka bu ñu xoolee daal ca gox ba yëpp juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent manqué na fa ci cycle yëpp nag muy élémentaire mooy secondaire li ko waral di départ yu bari waaye yi nag ñenn ñi dañoo gis ne xëy na li ci mën doon pexe bokk na ci njiitu réew exceptionnel bu ñu beral doomi diwaan ga euh, bu ko defee ñu mën a indi joyanti ci année scolaire bi nu jàpp ne départ bi baaxul ci ñoom Ali Bandel Niang ndorteelu année scolaire bu doy waar ren ci région bu Matam bëccëg bu njëkk bi ñeel rentrée bile xayma nañu juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent enseignant yu manqué ci région bile maanaam ren ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent enseignant bawee nooñu Matam mu ñëw fekk ñaari téeméeri enseignant yi fi manqué woon daaw ñu doxantu ba ca inspection ba dajak fa kilifa ga di mbay baabu académie Matam dafa nekk académie boo xam ni jàngalekat yi toujours dañuy am possibilité mën a demander dem ci yeneen académie xam nga boo baree enseignant yu dem bëri déficit la l'année day difficile ministère tamit kon ko xam nañ loolu ñoom it dañuy travailler toujours pour jox ñu yeneen enseignant yi nga xam dañ koy a démarrer école bi ndax ren boo gisee ci suñu limu jàngalekat yi lu toll na ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent dem nañu. di ab situation bu doy waar bi nga xam ni mu ngi jur jiixi jaaxa ci bopp way juru ndongo yi ndax nag diwaanu Matam dañ ko dippee zone de départ ndax jàngalekat yu bëri bu ñu jeexalee seen formation dañuy ñaan affectation dem feneen lii kon moo tax ba way juru ndongo yi di fëgg seen gémmiñ di sàkku ci njiitu réew mi mu recruter enseignants yi bawoo ci région bu indi leen fii leen ba ñu pare ñuy ñaan désaffectation dem seen yoon metti nañu trop trop trop ñoo ngi ñaan gouvernement bi surtout le président de la république mu recruter ñu déjà yoo xam ne fii luñ dëkk si biir euh, région Matam ñoom peut-être suñu fi nekkee kenn ñu ñaan affectation. ci fàttali nag donte jéego am na waaye ba léegi ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent sal de classe ci ay abri provisoire la ñu fas yéene doore année scolaire bi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fi ci ronu Matam pour Malal maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay Assane. Ali Bandel ñu leeral ko ni abri provisoire yi mooy mbaar mbaar yi rek daal mbaar. mbaar yi xam nga boo nee abri provisoire sunu yaay yeeg yooyu ah. duñu xam lu xew léeg am na ci waaw classe yoo xam ni ay mbaar lay doon daal. dañu war a tàggat gone leen alphabétisation jàngale leen wolof. wolof bi waaw am ñu ngi ci. dañu war a wolof ci kër gi am na ci réew mi. en fait ni sa masque ñoom bu nu roulé wul rek foog ne làkku nu man nag ma laaj man nag man nag amoo amoo kii boobu <laughs> ay dem tàggat yaram <laughs> Louga moom dañ ko fa teree fi mu toll nii mm. préfet ba kenn dootu fa nawetaan du football du du tëgg du mpecc la ko waral mooy da amoon ay foofa fitna yee doxoon diggante ñaari ASC mu jël dogal ni daal ñu ko dakkal ba mu toog ak kilifa yi waxtaan ak ñoom ngir loola bañ a amati Nafisatu Njaay moo ci indi yeneen i xabaar dogal bi nga xam ni préfet bu Louga jël na ko ngir aj match nawetaani ba fi fileeki fan askanu Louga rafetlu nañ ko lool ku ci mel ni waaye si nga xam ni ñu ngi ko fekk ci buntu këram mu toog di feexlu. je pense que loolu moom mooy dëgg mooy yoon bu ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jouer ñoom ñoo war réunir xool naka la ñuy mën a defee un encadrement pour que jeunesse bi ñu mën leen teg dans une bonne route et non muy nekk ay bagarre des histoires et trucs comme. Balla ab joueur la ci ASC Teranga ñu ngi bu Louga bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom préfet bi mënoon na képp ci pini ñaari ASC yii di jëwriñ ak jamono te nga xam ne ñoom ñoo waral bi le dogal c'est normal parce que ñaari équipe yëpp li ñu du yoon mais li gënoon a rafet garde leen war a suspendre comme yeneen équipe yi ñu continuer suñu nawetaan moo doon yoon man si li ma gis man waaye sii dina bu turam moom leneen lay naqarlu muy violence yi nga xam ni mënul nemmeeku saa yu match ci stade moo waral loolu te loolu imaginel ci biir foofu mu amoon koo xam ne dafa am asma wala dara nekkoon ci biir stade bi mais lu ne mënoon na ko dal te loolu lenn waralu ko lu dul violence seen violence yi yin gis parce que loolu bu amatoon grenade lacrymogène du am parce que mobilisation bi rafet na tout était ok. jamono ji nag préfet bu diwaanu Louga jël na décision ngir amal ak waxtaan fileeki fan ak ñi seq lang gi ñu mën cee lim ODCAV ak ASC yi Nafisatu lu ñoom ña nga ca Malaisie di amal jongante ba foofu dañu war a defal demi-finale bi ëllëg Sénégal Ukraine lay doon ñoo bokkoon pour ñoom daje ku ci nekk am nga loo defoon sa morom ku ci nekk am nga loo jàngat ci sa morom Youssouf Bodian jot naa waxtaan ak ka doon tàggat équipe nationale Sénégal bi ci yële jamono ñu déglu ko. attaquant Ukraine yi ñooy tere nelaw défense coupe du monde bi ndax dugal nañu fukki but ak juróom-ñett ci juróomi match. ci phase de groupe yi Sénégal daal di encaissé ñaari but diggante mag Ukraine kon faaw mu gën a xoolaat défense am ci match bi di gis-gisu ki nekkoon sélectionneur équipe nationale des sourds-muets di Abdou Aziz Diam. xam naa ni Souleymane dina veillé bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ci défense bi pour que au moins euh, Laurent Mendy Xadim Maron wala donc euh, a mën a organiser ba na peut être ni mu gisee suñuy camp pour ñu mën ko am nag il faut que au moins a veillé ci a defaraat xam naa ñun ak Ukraine su fekkee ñu ëpp nañ leen li ñu téye bi donc sur le physique xam naa ne tiituma leen am nañ mental bu baax boo xam te ni par exemple dañu mën a permettre tey a gañ a waaj Sénégal daal di dugal fukki but ak euh, benn ci coupe du monde bi bi muy dajeek Ukraine ci phase groupe yi mu dugal ko ñaari but mu tax na kon ci demi-finale bi faaw sunu attaquant yi gën a efficace ci xalaatu Abdou Aziz Dia. sera naa seen match contre Ukraine bi nga xamante ni donc moom mooy favori tournoi bi Sénégal rek laa gis xëy na peut-être moo dugal ci camp Ukraine donc début parce que aussi xam naa ni donc am si kaw am nañ ci ay xale yoo xamante ni ñoom it à tout maanaam mën nañ dugal ay bit je veux parler de Mohamed euh, Mbaye xam naa aussi am na ay yoo xamante ni moom ak ak euh, Pape am nañ ay qualité tey jii leen mën a permettre xëy na ñu mën a dugg ci défense su euh, Ukraine bi jaxase ko. Abdou Aziz Dian nekk champion d'Afrique ak Sénégal moom it moo ko yóbboon ci Jeux olympiques Brésil 2022 te Sénégal dem ba quart de finale yooyu sax Ukraine moo ko mujjee gagné. ñu jaaxal euh, ak wàllu footballu tubaab ya ci démb Angleterre moom euh, Chelsea daa na am ndam euh, dafa daan Fulham ñaari bal si ndam loolu nag foo Chelsea yàgg na di ko wër ndax ñoom dañoo am ay joueurs yu bari yu ñu jënd ci koppar yi takk waaye ba léegi mun noo am ndam yi daal seen xel ci wàllu Ligue des Champions. dinañu sóobu si ñaareelu bës bi tey jii nag ci ngoon nu ni Manchester United mooy jonganteeg waa Galatasaray Bayern Munich moo nga dem fekki waa FC Copenhague Lens day lajante ak waa Arsenal lance ñaar fukki at ak benn ngi nii footballul woon si wàllu Ligue des Champions moo tax dëkk ba fu mu toll nii mu ngay jax ñëpp ngi waajal jongante boobu Arsenal tey ci suba la ñuy yaa di yegsi ci euh, lance ndax démb. Euh, foofa jaww ji dafa xawoon a naqari ba seen roppalaan ja mujjute woon a tukki nee nañu sax tey la fa fas yéene amal seen ndaje ci satu xabaar yi te loolu démb lañ ko waroon a amal PSV Eindhoven dina jongante ak waa Séville jongante beneen bu ñuy xaar te mu dox diggante italien yu nekk ci Naples ak waa Real de Madrid Inter Milan ñoom ay italien la ñoom itam ñu ngi war a jongante ak waa Benfica Lisbonne Braga jongante ak Union Berlin jongante yooyu nag bu juróom-ñaari waxtu si ngoon jotee lay euh, tàmbali Aja San Gueye jërëjëf Malal. kaddu gaa ngoog tubaarkàlla. RFM mooy rajo bi mm. gën ñu yegg seeg yéen ci chronique culture ngi leen di nuyu mbokk yi. démb altine ñu ngi doon euh, sargal buruk usuy mu di cérémonie boo xam ne ñu ngi koy amal at mu ne ñu ko doon amal ci teewaayu ministre de la culture waaye itam ci teewaayu ay euh, kilifa aada ak politique yu bari mu di xew-xew boo xam ne dinañ ci profito ngir daal di ñaan jàmm sax dàkk ci biir réew mi Lamine Ba. aussi yëngu na bu baax a baax ci li jëm ci loolu caada ak cosaan ndaje bu yaatu boobee nga xam ne nag ñu ngi koy tuddee xumu bël di feetu roi bi ñaari pàcc nag lañ ci seetlu Souleymane Diédhiou moom moo yore kàddu gu roi aussi Sibylle Mbaye Diédhiou. feet boo xamante ne pour dajale la dajale mais ci dajale bi sooy dajale mbooloo. da nga koy dajale si jàmm dajale ci jàmm ñi foos ci jàmm ñi ku nekk ñi tasaaroo tamit si jàmm loolu mooy sens bi donc chaque fois ci cosaan joola wala xale yu góor yi ñi génn pour dembare bëri lii la ñuy jëkk def dañuy fecc lii pour lii moo leen di gën a may assurance may leen force may leen courage ak détermination pour mën a dem jàkkaarloo ak seen morom. cérémonie officielle ba nag amal nañ ko ca biir cour royale ba ci teewaayu ministre de la culture du docteur Aliou Sow. yoon ren bi nag ñu tànn euh, poñ boo xam ne dañ ko jagleel lépp luy kaaraange jaawoo ji muy ñuy wax protection environnement ndax ca xam ngeen Casamance liñ ko gën a xàmmee mooy àll bu naat ba aussi commencé na am ay ñu ciy gane si ñoo xam ne defar ko taxu leen jóg yàq ko daan leen garab yi daan lépp léegi li lëmbee adduna bi mooy li nga xam ne nii mooy garab yi ñuy yàq pollution bi di mu baree li muy indee ay feebar di indi dellu ginnaaw ci wàllu koom-koom loolu nag nit ñoo war a def seen i pexe. ministre de la culture et du patrimoine historique nee na nañu fexe nag lépp luy caada ak cosaan bi laloo ci mbir yooye ñu fexe ba gën koo aar. ndajale boo xam ne at bu yàlla sàkk ay fan yu bëree bëree bëri lépp luy cosaan ak aada lépp luy mbaaxu maam lépp loo xam ne moom mooy canu mbaaru koom-koom jàmm cosaan aada ak taarixu gox bii nii ñu nekk di usuy te mu ëmb lu mat fukki dëkk ak juróom-ñaar ak lu ko weesu ndaxte yeneen buur yi nga xam ne nii dañ nekk également ci gox bi ñëpp a ñëw si bokk loolu loolu di màggal Sénégal di yokk jàmm Sénégal di yokk également cofeel ak mbëggeel Sénégal. Ouma Bal nag nekk na dajab caada boo xam ne daanaka dafa yëngal bu baax a baax aussi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. ci wàllu cinéma lu toll ak juróom-benn film ñoom ñooy xëccoo ngir représenter Sénégal ci euh, Oscar deux mille vingt quatre xibaar tukkee ci suñu naataango yu APS muy euh, ñeenti film fiction ak ñaari film documentaire bokk ci euh, tirailleur bu Mathieu Vadepied. wala Banel et Adama bu Ramatoulaye Sy euh, nga xam ne moo représenté woon Sénégal euh, ci euh, festival de Cannes bi ñu daan amal ci weeru mais gile weesu cérémonie Oscar 2024 yi jàpp nañ ko fukki fan ak ñeent ci weeru mars gi ñu dëgmal mbokk yi fi la ñuy yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Touba Darou Salam Prestige. hello partenaire DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeyri AAD ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf conférence de leaders bu Benno Bokk Yaakaar ndajeem waxtaan mi ñu doon def la ñu fa doon waxtaanee l'observateur mi ngi ñu koy wax. ubbil yéenekaay bi waxante nañu fa yu baax dekkal nañu fa yaakaar tëgg nañu fa pacte d'engagement éthique politique engagement yi candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo yéenekaay bi ngi ñuy wax ne joxalante nañu ca ndajam dimb ma ay kàddu yu daw yaram fa ñu ko waxante di ca ndajam conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar bi moom la xëyee ci xëtamu njëkk ba di ñu détaillé la fa xew mbir xew na ci biir Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar am nay responsable yu mag yu bokk ci parti socialiste yu ci àndul Mame Bounama Sall bokk ci parti socialiste yéenekaay bi nee nañu bokk na ci ñi ci jommi moom li mu bëgg Les Échos nee nañu mooy parti socialiste convoqué secrétariat exécutif national ba parti bi nu mu gën a gaawe ngir ñu waxtaan ci candidat yi bëgg a bokk ci wotey présidentielle yi di ñëw sur soi nee nañu seenub lim ëpp na téeméeri candidat ak juróom a yëglu ci élection présidentielle candidat yi ñu bari ci ñoom xëy nañu ak moo yéen a kaay ñu xëyandool El Hadj Ibrahima Sall dib candidat moo nekk ci bés bi le jour Aliou Mamadou Dia mi waa PUR tànn def ko seenub candidat mi ngi ci laa sinekaay El Hadj Malick Gakou bu coalition Gakou mi ngi ci xët mu njëkk journal la mandat moom ak programme bi mu tëgg tuddee ko 3R réconcilier réparer restaurer kii sàkku ñu restaurer ko ci droit am delloo ko ay àqam ak yelleefam di Ousmane Sonko moom mi ngi ci xët mu njëkk Le dañu wax ne ginnaaw bi ko direction générale des élections écarté ci wàllu moom Sonko wëlbatiku na dem ca yoon ngir lijjanti ko fa ab awakaam di maître Bamba Cissé déposé na référé ngir ñu dellu gannaaw ci décision bu ni mel sursoi nañu ñoom avocat yu Sonko yi démb ca la ñuy jot këyit di notification bi leen di wanne seen waa ji di Sonko seppi nañu ko ci liste électorale yi ñoom avocat yi ñu gàddu këyit wa dem saisir tribunal bu Ziguinchor lu tax tribunal bu Ziguinchor nañu moo di ndax Ousmane Sonko mi ñu ray ci liste électorale yi ca jooyndi yu mujj yuñ ciy séntu di les derniers réglages Sud ne nee nañu coow mi ngi ci li ñu naan doublon externe ensemble pour Mbàkke point actu nee nañu kuréel la dip mouvement bu yees bu ñu samp ca Bawal ñu ràññee ci ay kilifa yu ci mel ne Sëriñ Galas Mbàkke Amina moom Alaaji Baara Mbàkke Falilu Xaadim Bamba Sarr Abdoulahad Lo Alioune Diouf di opérateur économique Sëriñ Saliou Mbay Biram Fall ak ñeneen seen yitteeg seen yéene nee nañu mooy développé Mbàkke yéenekaay bi nañu te nag ñoo nga ca ndax dugal gum nañu ca dëkk ba ñetti téeméeri million ci ay matériel médical ñaari watay benn place ngir askan wa yeewoo ca Mbàkke ñu romb Mbàkke jàll Tuuba wax ci ndigal li bàyyee ko ci xalif général di murit sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru yëral xët mu njëkk enquête ne kay bi santaane na képp kuy sampati daara ca dëkk ba baa nga fay tabax juma wala jàkka nga defee ko ni ko borom dëkk ba sëriñ Tuuba Cheikh Ahmat Bamba Xaadim Rasuul santaane ndigal loolee Nicolas yéene kay tudde mooy fatwa bu sëriñ Muntaxa kàddu yi ci sëriñ bi yëkkati Vox Populi xëy nañu ko jottali ci xët mu njëkk ci xët mu njëkk l'Observateur xew xew jamono beneen bu yéebeeti fukki sën ak juróom-ñaar yéene kay bi ne nañu ñoom la ñu jàpp ci ci ndakaaru juróom-ñaar ci ñoom ay xale yu jigéen lañu police bu unité 15 bu Parcelles Assainies moo leen jàpp ñoo ngi leen jàppe ci benn appartement meublé volé jëfi saay-saay njaayum dorog ak ak càcc la ñu leen jàpp démb ci altine ji ca lañ leen defeere ba ñoom ñëpp l'observateur ne nañu ñoo nga ca kaso ba Touba Darou Salam Caro Prestige hello partenaire DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeri AAD ñoo leen doon may ci yéenekaay yi jërëjëf Mamadou Mohamed mbokk yi ñu ngi leen di gërëm xibaar yi la woon ak RFM bokkoon na ci ne ay xibaar ji jeneen ñeel wàllu tukki mi ci anam yi dëppawul ak yoon benn gune gu ñàkk bakkanam ca tënge ci xeexoo diggante euh, ku yóbbuwaateek euh, ñu taxawoon ngir ñu yóbbu leen euh, bitim réew la indi xeexoo bi rek mooy moom waa ji di yóbbuwaate daa bëggoon daal di leen yàkkale ci gaal geneen loolu indi seytaane gi xibaar yi bokk na ci waa kër gi di Total Énergie ñu ñoddi waat yenn ci ay gaz ci marché bi ngir rek ak wóoral ak it xoolaat lu jëm ci wàllu moytul askan wi jéya xibaar yi bokk na ci Touba Mbacke ak euh, càkkutee fa ku tedd gi Serigne Mountakha Bassirou Mbacke ngir ñu daal di organiser waat euh, wàllum daara yëf ci njàngaleem alxuraanul karim ak école franco arabe yi dafa bëgg lépp rek di méngoo saa su ne ak njàngaleem digley euh, ku tedd ki Cheikhul Khadim Juan Branco kenn ci avocat yu Ousmane Sonko àdduna ci micro Babacar faa la mu gis mooy ni xeex bi du ko dakkal rawatina ñi taxoon ñu jàpp ñi nga xamante ni ñoom la ñu ndax ngan gum fi ci Sénégal ca dëppoowul ak yoon la bokk na ca euh, maire bu Songalkam ak it Ousmane Sonko lépp daal dina taxaw ngir ñu libéré ñooñe ñu jàppe ay détenus politiques <coughs> ngeen baal ma. jërëjëf Abdou ci technique bi jërëjëf euh, Maysa ci kanam tuuti penco geeg RFM dañu ànd ak monsieur le ministre du commerce Abdou Karim Fofana waxtaanee njëg yi euh, ndax it ci la <laughs> élection yi naam politique ak dëgmal gi waaye wàllu njëg yi marché bi. surtout facture courant yi nga xamante ni Abdou Thiam man sama bos dama ko doon dem yóbbul euh, sëñ bité yi rek bu Senelec teg ko ci taabal ji yàlla yàlla oyofal lépp ci njaboot yi rawatina ñu yendu ak jàmm. Vous êtes actuellement sur les finitions de votre projet de construction. Vous cherchez les plus belles marques européennes. Touba Darussalam Caro Prestige vous propose un large choix de carreaux, plomberie, sanitaire, peinture et décoration, meubles de salle de bain et cuisine d'une élégance raffinée.